sampiyon baa ngi rak jarul xulo jarul xeex sampiyon baa ngi ma Maodo maa ngi lay ziar. delloo ziar Babacar. maa am nga jàmm. maa ngi sant bu ma mel ni tey sa rakk mooy waajal komba walla sax mën naa daal sa sa sa lépp laa ko mën a waxee actuellement Pape Ndoye bi nga gis ni est-ce que yor na lu daan Jackson samedi. non Pape Ndoye moom mbër la moo xamante ne foo foo ko fekk rek day pare waxuma la sax yàlla rek mooy dogal mais day ki muy bëreel sax amaana sax duñu ay naataango parce que Pape Ndoye ñun ñi ñuy war a di bëreel ñun moom ñooñu la war a di bëreel mais comme que adversaire da xaw a jafe looloo waral muy façon di am combat yi mais moom koo xamante ne la foo ko fekk day pare. samedi nu ngeen koy indee. sam samedi ñëw rek moom xam na li ko war ndaxte xam na ndam lii nii fan la koy yóbbu moo tax dañuy ñëw rek ne ko ñu ngi nii li ngay defanteeg ñun kenn mënalu la ci yëngal nga nekk équipage yaa ko contact ay Gris Bordeaux ay ñëpp kenn mënalu la si dara loolu na boo dajee koo xamante ne te bokku leen da nga ko war a wane noonu rek lañ ko indee te incha allahu rabbi yàlla dina ko may ndam. yow ci loo ne. man maa nii rek sant yàlla. ana yi. avance bi maa ngi xaar rek waaw. avance su kan ku ñëw baax na mais gars yi comme que Elton lañ bëgg dañ bëgg ñaari ponkal yi nañ ñëw pare naa. mbër maa ngi lay ziar. Babacar delloo ziar. Ah, yaa ngi taxaw nii. <laughs> maa ngi si jàmm. maa am nga sant yàlla bu baax alhamdulilah. waa Sénégal ñoo la nam gëj laa gis ci loo ne. waaw ñoo ngi ne rek sant yàlla bu baax ñoo ngi si jàmm baax waaw. sa mooy bëre loo si moom. waaw moom jàmbaar la mi ngi entraîné mi ngi bëre tamit booy boo xamante ne jàmbaar la ndaanaan la maa ngi koy ñaanal rek yàlla suturaal ko may ko ndam lu gaaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yéen ku dàq bëre. non kii kii lépp moom la lépp moom moo ko ëppale waaw. da ngaa bàyyi bëre gars yi nañ da ngaa bàyyi bëre. tuubul. waaw dama la si loo ne. sant Serigne Touba wërëwër. Eh, yow lan moo la si boole. waaw ñun tuwul Rebeus mooy ak Fass benn la rek Bamba Ndoye di suñu doomu ndey ñu koy ñaanal yàlla may bu sedd guy ci barke Sëriñ Tuubaa. est-ce que mën naa daan Jackson kii. jël bu gaaw sax barke Sëriñ Tuubaa. yaa wax li bilaa walaay talaay. waaw. sa digganteeg Mama Lamine coow li bëri na ci. waaw loolu aw ma dara lu ma ciy wax bés bu ñu làmb boole ñu war a bëri dinañ bëri mais instant dafa jotagul pour parce que am na feneen fu ma teg sama bëri fu lu moom moom moom mooy loolu noonu ñu ngi koy nuyoo passage di ko siyaar mais man ma wax dëgg yàlla sama bët instant yi ne xool naa ko feneen ful ci Mama Lamine laay kii bu faas yéen ñi ko xam waaw champion mag baa nii ci loolu ne sant alhamdulilah Babacar ah daa mel ne ma ñu ndam barke borom Touba mën naa yomb non du yomb ndax ñaari ndaw lañ waaw mais ñu ngi naanal Pape Ndoye nag yàlla may ko ndam ci kàttanu yàlla kontaan ci yow waaw bëgg ci yow Babacar aja jaayam waaye élément bi Lamine sa élément bi Serigne Omar Diop bàyyi na bépp acti léegi Serigne ñu làmb la xool kook leget gi mu yor xoolal leget gi. <laughs> mbokk yi nuyu nañ leen siyaar leen yéen a ko gis Pape Ndoye Lagros génn Gris 2 génn Double Moteur génn Boy Dakar génn ñaari tali Grand Dakar yëpp génn Tafa Boy Bambara génn ngay waajal samedi combat Pape Ndoye nuyu nañ la siyaar la. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi siyaar média bi yëpp maa Sénégal yëpp di nuyu sama waa koñ parce que gis nga ni ma wootee ñëpp génn ñëw wuyu ma maa leen di siyaar ñoom ñëpp di leen nuyu ñoom ñëpp waaw di sant àdduna di wax na ma ñëpp ñaanal. yàlla may man ndam ci kaw Jackson di sant sama yaay bu baax ak sama papa maa ngi sant gi sax la jóge ñëw ba fii loolu moom doyul waar kan la ah naa fi ma Lamine Mene Pape Ndoye numéro 2 waaw kooku kooku sama toma hmm. la kooku sama toma la kooku ma fu ma naanee ndox mu naan fa acide hmm. waaw sama doom doy la dégg naa biir kër guy gi la la ñaanal ndam waaw loolu moom leer na moom hmm. waaw loolu moom am na moom Jackson moom yaakaar na seetaan nga ko parce que am na yóbbante bu mu ma yóbbante kani moom làmb ja xanaa kay ñàkk a wàcc bëri si naa ko pam doy ne da lay dàq jàpp la daan la mu ne loolu ay bagage su boppam la waaye su bis baa du dàqe du daan waaw man moom xam nga rek comme li ma waxoon rek laay waxaat waaw du ma taayi di ko wax àdduna ñoo may seetaan àdduna yëpp ñoo may seetaan incha allah rabbi samedi ci kattanu yàlla bu arbitre sifflé Jackson ma attaqué ko koñe ko gañe ko barke alxuraan Jackson mënu maa xajamal sax fu mu taxaw dinaa ko fa fekk dañu seetlu ni la yow par rapport ak ni ngay bëree da ngay bëree ak fugu est-ce que loolu mënul mënul la indil benn jafe-jafe ci sa biir combat. mais Fass mooy staff physique. Fass moom Fass Fass Fass moom ku leen xam-xam ni ñoom moom loolu si ñoom la fekk baax. waaw ñoom lépp pare nañ ko. mais ni la Matar wax nii xale bi parce que daaw boo xoolee sorti yi mu def ak mbër yi mu bëreel bi muy ñëw joxuñu woon ko faveur de te ay jël yu rëy yu doy waar leen daal. waaw man damay man man damay sawar si bëreeg champion. man damay saru si sa bëre ku ñuy wax dafa mën a bëre parce que damay bëgg su boobaa su ma ko defee li ma ko bëgg a def ba pare boo ko defee ñu mën maa jox sama gëdd mën maa jox sama cër parce que man du mën a booy waaw mhm. bien sûr année balance bi am na lu ma yàqal parce que su fekkoon bëri naa kon du ñu wax sama combat ak Jackson. kon moo tax nag bés bu ma année balancé ba ñëw jël Jackson di bareek moom kon dafa am lu ma war a wane. dafa am lu ma war a indi loo xamante ne nii àdduna yëpp xamante ni Pape Ndoye mi bëtam xool na feneen fudul fii. waaw te incha allah rabi samedi dinañ xam ne loolu lépp dëgg la. waaw. <laughs> mais man ñi ma daan moom daanu leen man waaw ay qualité laa daan ay champion laa daan dama dem ba kees jàpp laay goote daan ko bëree gàmmu gay di wàcc si mbapat bi di bëre chaque dimanche di finaalu di jël te loolu moom xelam xalaatu ko te Jackson wax ji yëpp du loolu man moom samedi incha allah rabbi li ma ko waxoon rek laa koy waxaat fu mu taxaw ma fekk ko fa. mu mel ni waa Géejawaay buñ ci seen kaw de Pape Ndoye parce que boo xoolee Balla Gaye 2 moo mujj ci kaw Gris Bordeaux waaw loolu loolu loolu loolu samedi lay jeex incha allah. yaa koy jeexal maa koy jeexal. ah waaw. cinq minutes. Jackson mayu ko kon daf may yab mayu ko sax minute. man bu arbit sifflé moom maa ngi ci kawam moom loolu moom bee boo mu xam ko bu mu fi nekk sax di yooroog yooyu noonu na taxaw rek. maa mel ni marocain ma defaral ko lépp ma solal ko yére defaral ko lépp bàyyi ko mu def waaw exposé ko. yéen ñaar ku dàq xeex. Jackson maa ko dàq xeex. ku dàq bëre. maa ko dàq bëre. ku doole. maa ko ëpp kuy daan. maay daan. ci ñaata minute. déggoo li ma la wax mën na bañ a mat seconde ndax xam naa ne prix maa ngi ci kawam. waaw mu mel ni tamit dinañ la ko laaj parce que fan yi écrit bi ngeen bokk dégg nañ ne génne nañu ay sart yoo xam ne dañ leen koo tegal ku ko matalul ñu dàq la ci écrit ba. ñun équipe bi duñ jóg si diñu conseil duñ jóg di ñu tegal ay sart mais sart yooyu ñuy tegal yëpp sart yu ñu jëmale kanam la du sart bu bu bu débordé du sart boo xamante ne nii lu xajam la wala dara sart sart di ñu di ñu di ñu conseil di ñu dolli pour ñu mën a teral suñu waajur yi rek la ku ci mel ni père Abbas Ndoye père Tafa Gueye Gueye Camara Ibrahima Mbaye waa Fass bi yëpp ku lim daal da ngay juum quoi su ma limee damay juum mais wax dëgg yàlla sart yi ma gis ñu tegal ñu moom nekkul sart boo xamante ne ni lu ñuy lor la lu ñuy naqari la waaw gis nga. Lac na dellu si waat si lamb. Ah, bien sûr. waaw waaw xanaa gisoo ko xool ko. est-ce que mu ngi entraîné. mu ngi bu baax sama combat bi man moom Gris 2. gaa yëpp ñooy ànd écrit bi yëpp ñoom Gris ñun ñëpp ñooy ànd di matinalu Birahim mii dul mbër sax xanaa day entraîné. ñëw double moteur nu la def fii. waaw double moteur ñëwam marqué na ma parce que bon nit la koo xamante ni sama waay la. sama nit la te jàmm la ma yéene te doomu fas la te du def lu dul di ma ñaanal man tam du jóguma si di ko ñaanal waaw nit ku baax la daal faas yow yaa war a saison bi loolu lan lay def ci yow non loolu moom du gulet ci man maa ko defoon kees maa ubbi woon kees damay ñëwaat rek jaar fi ma jaaroon laay jaaraat ak moom rek dajee ngeen signature gis nga Jackson Jackson gis na la mais ko xaw a ko maas de dama ko ëpp doole dama ko ëpp doole fuuf te samedi incha allahu rabbi yéen journaliste yi sax di ngeen toog ngeen xam ne lii du woon combat. Hmm. est-ce que ko. xeebu ma ko de man du ma bilaay wallaay yéen ñiy taxaw nga xamante ne du ngeen ay mbër sax su ma doon bëree yéen dinaa leen jox cër bi ma leen war a jox. mais en tout cas boo ci arbitre moom li ma war a def dama koy def mën def mënuma tere ma bëgg bëre bi ma bëgg a bëre ba dum incha allahu rabbi dama koy bëre waaw man muy Jackson ak roi des arènes balaa ca yamale waaw man ku mënti taxaw sama kanam moom li ma li nekk si man laay joxe. dafa booy bambara bu ñëw si open press lu mu la def tamit. waaw loolu tamit marqué na ma sama mag la sama kilifa la suñu grand la waaw te bokk na ci champion yi nga xamante ne nii ci gox bi lañ nekk. booy Dakar gis naa ko tamit. moom tamit même chose Grand Dakar la dëkk ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ parce que ñun ñëpp dañuy dem wuuti pour indil Grand Dakar ñu mën a bëgg kon ñun waruñoo def lu dul benn nekk benn fidel ni yeneen dëkk yi di def ñun waruñu 100 pour cent daal cent yooyu gars yi def ñun waruñu ñu koo dàq waaw parce que ñun ñëpp ñoo far on est ensemble waaw Saaya nee na Zale Diouf ak loolu man yéen laay laaj yéen laaj <laughs> man moom ma xam-xam ni moom wax dëgg yàlla kaay xeex sax moo ma gënal kaay bëre waaw dem naa ba làmb dañuy wax Pam Doy mënul bëre. waaw wooteel woote waa da ciy baax. loxo yi dis waaw nag bari na trop. waaw ñi may jàppale bari na trop wax dëgg yàlla parce que combat dafa metti ku si mel ni Jean Diouf suñu maire bi jàpp na si. Ndeye Saly jàpp na ci combat bi ma mama Fall jàpp na ci combat bi bu baax a baax a baax. waaw Mama. ban. Pape Mama boobu muy tudd. <laughs> waaw. yow lu Mama. Pape Mama jàppale na ma sama mag la sama grand la. Ah. ba ma duggee ci làmb ba léegi ni may jàppale. waaw du giri xanaa mooy open press. <laughs> non giri de. giri giri karim. lépp moo la koy wax loo. <laughs> mu ngi bëgg a jaaxal. wala Gris 2 daan na am combat xanaa Gris 2 daan na am combat. en daal xam. Elton de ngi géej way boof. ñun ñun ñun ñun rek gis nga nii lañ mel nii ñu mel nii nii la mel ba làmb ja ba samedi ba dimanche ba lundi ñun dara déranger wu ñu. waaw léegi woote bi. waaw bi jarul muy bari. parce que xam naa ne dimanche samedi incha allah. ma toogaat ci plateau bi rek yeggale ñu des ci kàttanu yàlla waaw